doomi Mame Bousso dara jaal sëñ Bamba mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bi ñu santee yàlla julli ci yonentem bu tedd ba ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziar di jiite ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha Bachir di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool te ànd ak wér Mbàkke ba lépp loo xam ne yéen na koo liggéeyal maamam ji Cheikhul Xadim mu amee ko nam ko bëggee ak na mu ko soobee di ziare képp koo xam ne kilifa diina nga te nekk ci biir réew mi rek ñu ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay di ziare it kilifa aada yi waaye tey ñu euh, seet si koo xam ne nit ku tedd la nit ku màgg la muy Serigne Moustapha Mbacke ibnu Serigne Damata Mbacke ibnu Serigne Ibrahima Mbacke mu Cheikhul Khadim yaakaar naa dañuy bàyyi Serigne Mamour Cissé Serigne Mamour Cissé mu dalal Serigne bi tawarkalla. jërëjëf euh, Cheikh Mbacke Gaynde ñu ngi lay ziare bu baax yow it euh, di am mbégte bu baax jàkkaarloowaat ak yow. di lay doon ñu ñëw ci kër gi nga xamante ni kër Serigne Touba la fas yéene siq ak waxtaan Serigne Moustapha mi nga xamante ni euh, sunu wëllëre la di sunu xarit waaye itam du ràññeeku lool ci yoon wi ci liggéey bi am solo bi nga xam ne mu ngi koy def Mbacke Balla comme ni ko Serigne bi waxee rek dañ lay ziare bu baax a baax a baax a baax la jox sa wàccuwaay di am mbégte euh, fekk si la fii ci jotaay bi. ñoo ngi leen di nuyu ci turu a cheikh abdourahman mbàkke ñu gën koo xam ci sëriñ daam àtta di leen nuyu itam ci turu alxalifatul am cheikh mohamadul muntaxa mi nga xam ne moom la yàlla dogal muy xalifa cheikhul xadim di kilifa képp koo xam ne ab murit ga tey taalibi sëriñ sëriñ Tuuba di ko ñaanal yàlla ak wér ak gudd fan ak yàgga jiite yoon wi nga xam ne moom la ko maamam dénk moom ak ay rakkam ak mbooleem jabootu Seexul Xadim gi ak mbooleem taalibe yi di leen wax tafaddal maskuran mën ngeen tàmbali jataay bi incha allah macha allah rabbi Mbacke ci nuyoo bu matale boobu te am solo yaakaar naa bu ñu ñëwee ci kër gi euh, dinañu baax ñu laaj kan mooy Cheikh Ibrahim ndax suñu Ibrahim day ku tedd ku màgg koo xam ne dafa mel ne ndaw yi murid yi des nañoo xam dëgg-dëgg ku Cheikh Ibrahim bu ñu ci mënoon a kiyal dara rek loo xam ne dinañ ko dinañ dina ko dinañ ko mën baaxee askan bi bu ñu gën a xam ku Cheikh Ibrahim. waaw euh, Cheikh Ibrahim dafa bokk ci njabootu Serigne Touba. Euh, bokk ci ñi nga xam ne bokkul ci ñi ci mag waaye bokkul ci ñi ci gën a féete ndaw dafa nekk ci digg bi rek ndax booy seet euh, bi sëriñ bi jógee gànnaar ci 1907 ma juumut wala lu ko jege lu ko soriwul nekk ca yenn jolof ba jóge fa ba ñëw njaareem muy 1912 euh, ci la Cheikh Ibrahim gane àddina boo demee ci téere bu mel ni Irwa un Nadim bu sëriñ Mohamad Lamine Diop Dagana noonu la ko ca leerale ne safar wa bi jëkk a def ca njaareem muy weeru safar wi ñu ne ca ndoorte la ci la Cheikh Ibrahim gane àddina eh, bokk ci ñi nga xam ne seeni waajur yu jigéen gànnaar lañ jóge woon eh, li yàlla def nag nga xam ne ñu bari umpale nañ ko mooy teel gi mu fi tey la jóge ndax dafee yàggul ndax bi mu fi jógee mi ngi am lu toll ci ñeent fukki at ak ñett xam nga ne loolu bariwul loolu moo waral ñii ndaw fi mu ne nii donc dëppoo woon ak 1955 loolu mooy ñi nga xam ne ñooy ay ndaw fi ne loolu moo tax maanaam ñu umpale ko waaw waaye nag euh, jabootam a ngi fi euh, ka nekk ci bopp bi mooy sëñ daam Abdourahman bi ma leen wax léegi mooy sëñ daam Atta ak euh, rakkam sëriñ fàllu ak mboolem ay sëtam ñoom ñu ngi fi te itam wax dëgg yàlla ah, taxawaay bi ñu war a taxaw ci seen wàllu maam ci liggéeyal ko ak itam taxaw yoonu murit ña ca. jërëjëf Mbacke mu mel ni tontu yi am na solo loolu te leer waaye ñu desandi rek ci Cheikh Ibrahima ba tey ci dundam comme 43 ans moom bari na bariwul ñu bëggoon a xam ci tënk rek ci dundam ci lan la ko doon paase. waaw moom day bokk na ci eh, liggéey bi mu doon liggéeyal baayam mooy ci bokk na ci ñi ci jëkk tàmbali ab génn waaw di génn eh, génn bi mu mujj génn itam. Eh, moo doon liggéey bii ñuy waajal rek muy màggalu gi ndax euh, sëriñ bi ku ne xam na ne euh, bi muy dem bi mu demee Gabon def fa juróom-ñetti at mbaa yu manki euh, bi mu ñibbisee nga xam ne mooy weer wi ñu nekk ni di waajal bisam mi Cheikh Ibrahima it ci loolu la jokku ni ci jokkoo mooy Sëriñ Touba moo ko digal waaw lii la wax sëriñ tubaab moo ma digal ma dellu Gabon mottuli fa limub at ya nga xam ne mooy juróom-ñetti at yu mat a mat yoo xam ne moom la waroon a liggéeyal suñu boroom liggéey ba ku ne xam na ne mat na weer yàlla mottali yàlla dogal nag eh, tukki boobu mooy bi mujj a tukki bi mu ñëwee ñetti weer la ci teg daal di génn génn àdduna loolu kon bokk na ci liggéey bi nga xam ne moom la daan wax ne moom la ma sëriñ bi sant ma war koo def waaw de benn yoon boobu rek la fa dem benn yoon boobu la fa dem ci ndigalu sëriñ Touba ba mu ca demee bam mu dikkee ah, tegaatu ca lu ëpp ñetti weer ñetti weer yooyu daal la ca teg tey tukki ba it ñetti weer yi la fa def ne mottali naa limu mu at ya fa sëñ bi waroon a def waaw ni ko sëñ Moussa di waxee naan euh, bu ñu waree demal ma konga ngir mottalil ma limub at ya nee ma gonga at euh, ya Moussa liggéey woon ak Soyibu laa liggéey woon ak ra ak yàlla rabbu Moussa waaw noonu la ko joxe ci yokkub jasaaw sakoor boo xam ne mi ngi ko def gannaaw bu Cheikh Ibrahima ñibbisee mu ne gannaaw ba sëñ bi demee ba ñëw def naa jasaawu sakoor bu sëñ bi bu bu doomam demee ba ñëwit ma def yokkub jasaawu sakoor waaw loolu daal bokk na ci li nga xam ne ab liggéey la boo xam ne def na defal na ko sëriñ Touba muy ci màggal gi ci weer wi la gane àddina liggéeyam mooy liggéey bi sëñ bi defoon ci màggal gi ci weeru safar wi kon day mel ni lépp waaw mooy loolu rek waaw kon bis bii ñuy waajal daal mooy bisub seex Ibrahim waaw dañ cee am ñaari cër ni ma koy waxee toujours dañ cee am ñaari cër cër bu njëkk bi mooy ndigalul Serigne Touba li waaye ndigalul wàllu Cheikh Ibrahim bi mu ci am ñu ko doon ñu koy mottali waaw mel ne Mbacke macha allah rabbi eh, kàddu yi am na solo mm. waaye bu ñu déggee ci say wax kon Cheikh Ibrahim demoon na Gabon ngir mottali liggéey bu am solo boobu noonu waaye demu Gabon googu noonu eh, lan nga ñu ci mën a wax rek loo xam ne marqué na la mu amoon ca demoom boobu nga xam ne da koo demoon Gabon ngir mottali liggéey bi. Mm-hmm. waaw loolu it eh, yaatu na ndax daf ne Serigne Touba dane ko fépp fu ma tegoon sama tànk na nga fa teg sa tànk. booy dem ba bi ngay ñëw bul jëfandikoo dërëm kenn lu dul sa xaalisu bopp loolu yëpp mi ngi ci biir jasaawu sàkkoor bi wax nañ ne it euh, bi Cheikh Ibrahima demee ngir bëgg dem Gabon bi mu bëggee passeport ak visa ba muy demee dañ ne ko fàkk nga bàyyi fi garanti ca jamono yooyu mu jël téeméeri junni joxe ko muy garanti di jël xaalisam di ci paas ndax nee na sëriñ bi nee na ko bul jëfandikoo dërëmub kenn ku du yow fii ngay dem ba ñëw yaay man maay yow noonu la ko sëñ mu Ka waxee léegi loola waral mu dem Gabon bokk na ci liñ ci gën a mën a jàpp mooy dafa fekk euh, benn gendarme boo xam ne euh, Samba Ndiaye la tudd Samba Ndiaye moomu wax nañ ne jamono ya fi sëriñ bi nekkee ki la jébbaloon sëriñ tubaa ca Gabon sëriñ tubaa ne ko woon nag fii may jullee bu ko bàyyi mu ràpp ndax fa am na fa sëñ bi daan jullee ca maayombe foo xam ne ay garabi màngoo fa nekk garabi màngo yi juróom-ñeenti màngo la woon jamono ya fa sëñ bay ne nee na ko woon garab yi su dee ba des genn dinaa fi dellu si waaw Samba Jaay moomee ab soldaar la woon bu retraité nekk foofu doon taalibu sëriñ bi di sàmm loola ko sëñ bi dénkoon moo tax bi sëñ bi ñëwee ah ñu ne ko doomi sëriñ tubaa ñëw na fi da bi mu gis weeteeg sëñ bi da ne ko ah yow day mbàkkee nax nga waa fa nga jóge ndax sëriñ Touba moo ne ma woon màngo yi toogal di ma ko wattul di di sàmm bërëb bi te koy nemmeeku te su dee ba des genn dinaa fi ñëwaat te mango yi dees na dee na ba gis genn ba des genn kon buñ ne maa doomi sëriñ bi ñëw na dama xam ne sëñ bi gisatuñ ko ci saayir kon la sëñ bi waxoon dikk na waaw kookee nag mooy kim àndal moom Cheikh Ibrahim fépp foo xam ne sëñ bi tegoon na fa tànkam ak lam fa daan def mu won ko Cheikh Ibrahim ne ko fii ka ñëwal ma woon la fa sa baay daan julle ñëwal ma won la fam daan fam daan bindee lépp rek lu ci nekk rek mu leeral ko ànd ak moom ba yoon wi ñetti weer yi mat sëriñ bi daal di ñibbisi waaw. jërëjëf sëriñ Moustapha mu mel ni kàddu yi am na solo lool macha allah liñ bëggoon a xam ci Cheikh Ibrahima leer na kon ñaareelu pàcc bi rek xam naa dañuy dugg ci ci màggal gi ndax ñu ngi ci wàccaayu loolee tax télévision Futurs Médias daal di ñëw ci dëkk bu tedd bii ñu bëggoon a xam wàccaay wi ak màggal gi itam sabab gi ak anam gi nga xamante ni mbokk taalibe war nañ ko ko defee rawatina waa kër Cheikh sëriñ Dame Abdourahmane Mbacke. waaw dañuy nuyoowaat tey sant yàlla di sant yonent bi di sant sayxul xaddiim ndax sëñ bi leeral na luy sababus màggal gi sababu xëybati an allaha araada an anaala minhu jaaha wa an akuna saafian li xaw mi wa an akuna saafi xaadiman fi daw mi kon loolu mooy sabab si mooy lu mu bëgg dimbali jullit yépp walla dimbali mbindeef yépp ndax dem gi suñ dimbal la su amutoon mën naa ne diine lislaam du egg fii mu egg fii ci réew mi ndax sëñ bi dem na ba nga xam ne mooy garanti bu lislaam sëñ Bamba nee na may na ma dalub lislaam bi waaw lu ñëw rek te nga xam ne dafa nar a gàllo gàllankoor lislaam nañ ma ko teg kon kooku ñëpp la demaloon waaye lim ci bëgg loolu mooy àddina si waaye yowmal xiyaam it day bëgg ñëpp dem àjjana day bëgg ñëpp texe waa naa ko na shaafian li li xaw bi yowmal xiyaam kon loolu la fa bëgg waaw euh, ramu mbooleem mbindeef yi kon liggéey bi loolu rek ko taxoon a jóg dimbali mbindeef yëpp. Mhm, macha allah Mbacke. Euh, euh, kon kooku nga xam ne mooy Cheikhul Khadim ak mm. kàddu yu am solo yooyu nga xam ne wax nga ci moom. Mm. ku bokk ci moom nan nga war a euh, ni nga war a mel day mooy danga naan képp ku bokk ci moom wala képp ku di jullit te koy déglu. te koy déglu ndax bokk na ci lim doon leeral moom. bi mu nekkee njaareem. commandant de cercle bi nga xam ne moo nekkoon jaaree mas na koo laaj fukki laaj ak ñeent bokk na ca ne ko kan mooy murit ak fan mooy seen place mu ne ko murit moom jàppal ne pour képp kuy wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah jàppal ne kooku ab murit la kon kooku moom kuy ñaan suñ boroom jéggal ñépp yërëm ñëpp kooku kon bu la mënee woo ca la bu sañee da dugal ca lam ne te loolu mooy liggéey bi nga xam ne moom la doon liggéey bëgg a bëgg a bëgg a ràmm ñëpp yow xiyaam léegi kon bokk na ci li ko commandant de cercle bi laaj mooy fuy séen gox fuñ fuñ leen di xamee fuñ féete mu ne ko nag jàppal ne bépp réew boo xam ne am na fa kuy wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah jàppal ne foofa réewum réewum jullit la kon ni ñu war a mel rek mooy eh, ni ab jullit war a mel tënku ci ndigali suñ boroom bàyyi ay tereem bëgg yàlla bëgg goo xam ne boo ko bëggee doo am leneen luy am place ci sa diggante ba nga koy bëgg loolu moom la sëriñ bi digle noonu lañ war a mel kon loolu mooy ndigalul sëriñ bi eh, li ay tereem mooy li yàlla tere eh, li taxoon muy liggéey mooy lislaam waaw ñeenti tànk yooyu la mas di doxe waaw tànk yooyu moom la mas di doxe maanaam yàlla yonent bi lislaam alquran min alxaqi jaa alxaqu lil xaqi fii sax bi li xaqin mu biinin ñeenti xaq yooyu bu ci nekk bokkut ak sa morom bii yàlla la bii alquran la bii yonent bi sallallahu alayhi wa bii lislaam amutoon nag leneen lum soxla ci àdduna moom sëriñ bi lu dul yàlla waaw léppam da koo jublu loon suñ borom suy bëgg nit da koy bëgg ngir lam bëgg yàlla waaye suy won nit gannaaw it day xam ne kii daa won ginnaaw suñ borom mu won ko ginnaaw kon wajjahtu kulli lil waduudi samadi sa xidmatin lil mustama kulli nag buñ ko xasee wax amut lu ca des waaw day daal di jeex taag kon foofu la sëñ bi nekkoon moom amut lu muy bëgg amut lu muy bañ yàlla yonent bi alquran l'islam waaw macha allah Mbacke kontaan nañ xam naa waxtu yu sax moo ñu xaw a xoj waaye doyaluñ ci sa jëmm ji ngir kàddu yu tëdd yi nga xam ne yëkkati nga ko mm. euh, jëma jëmale ko ci sëriñ Ibrahima Mbacke mm. waaye jëmale ko it di ci way juróom bu baax ba mooy Cheikhul Khadim mm. kontaan nañ lool bu ñu sañoon day dem ba une heure de temps ndax wax dëgg yàlla doyaluñ mm. macha allah rabbi nii lay amee saa su ne eh, ci eh, télévision Futurs Médias saa su ñu leen di andil ay kilifa yu màgg ay kilifa yu tedd macha allah rabbi ñuy indi ay seeni waxtaan yoo xam ne képp ko dégg njëriñ rek lay doon eh, ci yow bu ko defee kon dañuy bàyyi sëriñ bi mu tàggatoo ak ay kàddu yu mujj macha allah rabbi mm-hmm. incha allah sëriñ bi comme ni ko gaydal waxee rek xanaa ñu bàyyi waaw message bi mooy maanaam màggal lañ jublu muy màggal goo xam ne sëriñ Touba moo ko digle mooy genn màggal goo xam ne sëriñ Touba moo digle joxe woon digal li te daa ko defal boppam kon loolu su ñëwee te am loo xam ne digee na ko ci am loo xam ne digle na ko ci mooy ñu koy def te koy dëppale ak sunna sunna nag buñ ko xasee wax lépp luy aada walla lépp loo xam ne bokkut ci diine dañ koy teg nale ba tax na ñu góor góorlu ci dëppale ko ak sunna waaw cant dañ ne cant jaamu yàlla ak bernde noon la ko sëñ bi diglee kon dañuy jiital jaamu yàlla teg ci bernde eh, ku na jaamul yàlla nag moom euh, leneen ab taxut ñuy wax loolu kon dañu ci dëppale ci jaamu yàlla te dëppale ko ak sunna sëñ moom léppam sunna la lépp lu juyoog la yonent bi wax loolu moom sëñ bi doxewu ni waxu ko ba tax na ñu def ci suñ kemtu lay kàttan ci góor góorgóorlu ci sellal ko ci wàll googu lépp lu ñu amit te xam ne sëriñ bee tax suñ borom jox ñu ko ñu def ko ca te bañ koo séenee na def ca loola loolu ci la ñëpp nekk muy sëriñ ba muy taalibe ba muy ñëpp ci loolu lañ ne ndax ñun suñ alal suñ jëmb lépp suñ bee ñu ko gënal kon bu bisub sëñ bi ñëwee amut luñ ci bañ a def wala fuñ koy yemale li ci nekk mooy li ñuy bëgg a bëgg nag di def lañ war a def am na yoo xam ne nañ ko wattandiku mooy lan yàq waaw soo amee lu ne gaañ ñi ba bëgg def li nga bëgg a def te nga xam ne lii boo ko defee itam day yàqu danga koy jël jox koo xam ne xëy na yittewoo na ko nga jox ko ko waaye jël loo xam ne wóor na la ne ëpp na say soxla ëpp na la nga war a def nga yemale ko ci sa bopp mu yàqu loolu it suñ borom diglewu ko wala tusrifu inna allaha la yuhibbul musrifin waxuma ne day am waaye dañuy dénke rek ngir mu bañ a am lépp loo xam ne da koy jariñoo daal nga tam yam ci yow ah, nga jariñoo ko waaye lu ca war a mën a yàqu fexeel ba mu egg ci loxol koo xam ne dana ko jariñoo te du yàqu loolu daal dinaa ko ci dénkaane bi ci des itam mooy ñu fexe ba euh, li nga xam ne léeg-léeg day faral di am muy lu mel ni ay yëkkati xasida wala njàngum alxuraan te ji soxna yi di ko def it loolu moom toujours dañuy wax ne soxna du yëkkati kàddu waaw day day day day am yoo xamante ne ni gannaaw ci njàngum alxuraan wala ci julli lañu la wax ne kii te loolu mel na dem na ba fi mu ne bari naa bari bari ba niru lu dagan te it lu lu lu mu bari bari te daganut it du tax mu dagan lu mu niru niru lu baax it te baaxut du tax mu baax kon yéene la rek ak eh, xam naa xiir waaye ñu moytu daal soxna yi yëkkati seen kàddu yi doon ci njàngum alxuraan wala ci njàngum xasida wala ngay dëbbee sax ñeneen di la aw yooyu wax dëgg yàlla dëppawut ak waaw dëppoo wut ak sariya itam kon itam loolu ñu moytandiku ko bu ñetteel bi te ci lay tëji mooy ñu wattandiku njistal njistal waaw di wane ne ah xëy na am naa lu bari wala wala lii maa ko def te la ngay def yàlla taxul waaye nit ñi gis koo tax loolu nañ ko wattandiku yonent bi sallallahu alayhi wa nee na mm-hmm. ngeen moytandiku riyaa mm-hmm. riyaa mooy njistal mm-hmm. ndax yata jaafa ma al nee na day dàqonte ak sellal ndax suñu borom lu sellul soxlawu mhm, yaakaar naa sëriñ bi mu ngi wax ci maxaaliku niran waaw man awliyanaalal jaa hindannas ba binnaari waxoon suufi filaas ngir bëgg ñu gis ko mhm, rek mhm, ah? loolu amut solo yàlla mi tax ngay def moom gis na ah? ba tax na ñu wattandiku riyaa ndax day yàq lu baree baree bare bare ndax suñ boroom jépp jëf joo xam ne yaa ngi koy jëf ci moom te defoo ko ngir moom rek ah loola du ko jël waaw inna allaha tayibun laa yaqbalu illa tayiban waaw kon ñu wattandiku yooyu te tënk suñ mbir ci sunna mm-hmm. bañ a yàq mm-hmm. te moytandiku riyaa mm-hmm. ngistal waaw loolu daal bokk na ci li nga xam ne waaw góor naa ko ci sànni ci kàddu yitte yee bari maanaam xëy na xat na moo tax waaye du ñàkk ci biir màggal gi ñu am yeneen jotaay yu ñu mën a kii ñoo ngi leen di sant bu baax nag di sant waa TFM mhm. ak kilifa ya fa ne. macha allah waaw wasalaamaaleykum wa rahmatulah. macha allah Cissé Cissé yi moom ak Sile Sile yeeg jaxate ah, jaxate bi am na jox nañ leen am na solo lool mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax lii mooy télévision Futurs Médias ci wàccaay màggal gi lañ nekk daal ne dugg ci bërëb yu wuutee ngir taataan fa ay kàddu yoo xamante ni kàddu yu njëriñ lay doon waaye itam di ñaan ci yàlla lépp lu dëng rek nañ ñu koy jéggal te xam ne sunu matadi la waaye bu jibee yàlla ñëpp bokk jëriñu di jaajëfal bu baax ma dikke elage ak ñëpp ñoo xamante ni ñi ngi jàpp ci liggéey ba mu yemb leen ñaanal jàmm bu baax a baax a baax a baax incha allah leen jox dig daje ci beneen jotaay asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu doomi mam bu so